Cheikh Bamba Bayu Abdallah Cheikh Bamba sant naa Bamba sant leen Cheikh Bamba sant naa Bamba sant leen Cheikh Bamba bëgg naa Bamba bëgg leen Cheikh Bamba bëgg naa Bamba bëgg leen Cheikh Bamba way naa Bamba sant leen Cheikh Bamba sant naa Bamba sant leen Cheikh Bamba sant naa Bamba sant leen Cheikh Bamba bëgg naa Seyxul Xadiim bégg leen bégg naa bégg leen ku tedd ki may way Ahmadu Bamba ku tedd ki may way Ahmadu Bamba ku tedd ki may way Ahmadu Bamba Ahmadu Bamba Ahmadu Bamba ku tedd gi may way Ahmadu Bamba ci borom Tuuba Ahmadu Bamba ku tedd gi may way Ahmadu Bamba eh Ahmadu Bamba ku tedd gi may way Ahmadu Bamba ci borom Tuuba Ahmadu Bamba Bambay borom Tuuba borom jaare Ahmadu Bamba Ahmadu Bamba ku tedd ki may way Ahmadu Bamba Ahmadu Bamba ku tedd ki may way Ahmadu Bamba ngal Serigne Bamba Ahmadu Bamba ku tedd ki may way Ahmadu Bamba ah, Ahmadu Bamba amay borom Tuuba borom jaareem borom jërmande jey Ahmadu Bamba way way Seex Saaliw Mbàkke am jamono Sëriñ Saaliw Mbàkke ku tedd ki may way Seex Saaliw Mbàkke tey borom xel kom Asaaliw Mbàkke ku tedd ki may way Asaaliw Mbàkke Sëriñ Bamba moo di baayam Seex Saaliw Mbàkke ku tedd ki may way Seex Saaliw Mbàkke Sëriñ Bamba moo di baayam Asaaliw Mbàkke ku tedd ki may way Seex Saaliw Mbàkke ana sa pay Sëriñ Saaliw Saliou loxo Saliou Mbacké eh Serigne Saliou Mbacké borom dookaan Cheikh Saliou Mbacké kili borom xel kom borom dookaan borom yërmande jeey a Saliou Mbacké ah, ku tedd ki may way Cheikh Saliou ah Cheikh Saliou Mbacké ku tedd ki may way Cheikh Saliou Mbacké Serigne Bamba moo di baayam Cheikh Saliou Mbacké kili borom xel

way Seex Saaliwu Mbàkke way naa sargal naa Sëriñ Saaliwu Mbàkke ko tedd ki may way Seex Saaliwu way naa kañ naa Sëriñ Saaliwu Mbàkke ko tedd ki may way Seex Saaliwu Mbàkke ah, Sëriñ Saaliwu Mbàkke ko tedd ki may way Seex Saaliwu Mbàkke Sëriñ Cheikh Abdallah Sëriñ Saaliwu Mbàkke ko tedd ki may way Seex Saaliwu Mbàkke borom jamono ku tedd kii may way Sëriñ Saaliw ci borom xel kom Sëriñ Saaliw ku tedd kii may way maam Saaliw ci borom yërmande ji Sëriñ Saaliw ku tedd kii may way Sëriñ Saaliw nu nanu gëm Sëriñ Saaliw qaadatil ujur wal masaaliw hee gisunu kemam والجذب وإني سالم خمن كما إن قادت الأجور والمسالم ينقصن كما بالطي والجذب وإني سالم tedd gi may way Seex Saaliw Mbàkke Sëriñ Saaliw Mbàkke ku tedd gi may way mel mooma Sëriñ Saaliw Mbàkke Sëriñu Cheikh Abdallah Sëriñ Saaliw Mbàkke Ahmadou Bamba moo di baayam ku tedd gi may way Seex Saaliw Mbàkke Sëriñ gëstu rek ah du ma dem ba leen du ma leen di itoo du ma leen di gëstu rek naa du ma dem ba leen bu ma gëstoo gisu ma leen damay dëpp jël si leen ay waay du ma dem ba leen bu ma gëstoo gisu ma leen damay dëpp jël si leen ay waay du ma dem ba leen ñi ko man ci yéen. ay waaye du ma dembale. ku ma soppal Serigne Saliou Baba Bokar. borom yërmande jeey Asaliou. ma leen jiitoo dama leen di gestu rek. Ah, nee na ma leen jiitoo dama leen di gestu rek. Baye Sall nee na. Ah, duma dama leen oh. di gëstu rek bay sal nee naa du ma dem ba leen bu ma gëstoo gisuma leen damay dëpp jël si borom doogaan borom yërmande jee Saaliw Mbàkke ko te digi may way Seex Saaliw Mbàkke defee ah, bëgg Sëriñ Saaliw Mbàkke ko te digi may way Seex Saaliw Mbàkke Sëriñ Saaliw Mbàkke ko te digi may way Seex Saaliw Mbàkke Sëriñ Bamba moo di baayam Seex Saaliw Mbàkke ko te digi kii borom xel kom borom duukaala borom yërmande jee Seex Saaliw min qaadatil ujur wal masaaliw hee gisunu kema bi tay wal jasbi wa inni saaliw hee xamunu kema ana soppay Sëriñ Saaliw borom duukaala ndege Cheikh Saliou kon Serigne Saliou jërëjëfate maam Saliou jaajëfate ci Serigne Saliou jërëjëfate maam Saliou jaajëfate ci Cheikh Saliou jërëjëfate Saliou jaajëfate Saliou jërëjëfate Saliou jaajëfate Serigne Saliou jërëjëfate Saliou jaajëfate jërëjëfate Saliou jaajëfate Serigne Saliou jërëjëfate Saliou jaajëfate Ah. macha allah nga jóg waxtu la neex boo duggee aras dégg tànkam bu gàtt ba di dal nga ñëw ci bisu maam Cheikh Ahmadou Bamba mu jël doomam ja Mouhamadou Lamine Baara ni Cheikh Béthio Thioune su ma digganteeg yow wóllëre waa ngi mbooloo mi dégloo dégloo dégloo te ñu moytu jaabante bi léegi rek ñoo ngi woon ci doon lim ñi nga xam ni bis bi ñor na leen ñu boole leen ci ñu nangu ko bi lay yéen a baax ci Birane Sow lañu yamoon waaye sëñ Abdoulaye Diouf kaay baax wane nga sa mbaax de léegi fii rekk ci Seydi Aboubacar bi muy woy léegi sëñ saaliw di taalibe sëñ Babacar nga xam ne maamaram Mbàkke rek moo meññ ñaar ñépp nga jóg def lu rëy yar na ne yàlla fay yamu fa dee sëriñ Fallou Gueye ak sëriñ Cheikhouna Fall sëriñ Khadim loo Gueye deel borom ndam ki tuxal xale yi ci lëndam indi leen ci leer ci seen diggali jur taal daara yi na maamam Abdourahman Lo taale woon daara yi wàcc na de ak kan sëriñ Fallou Niang service des mines Chérif Pape ay Kébémer Serigne Khadim Fall Cheikh Saad Samb waykatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu alwali Maane Ndiaye aleyka salaam papa maam Thierno Mbacke mu Serigne Modou Kara nooré mbooloo mi dégloo dafa nekk tukki waaye nee bis bu toll nii mu jagleele ko baayam bu baax bi fu mu jëm moom di wane baayam te moom mooy alalu sëñ Tuuba ne fu mu jaar def ci asaka yéeneem tàbbal ci ñaxam nee na nekku fi de waaye ahlul mbàkke yépp ñoo ngi fi ndax ahlul mbàkke bu kenn teewee yóbbaale na ñépp géew looloo waral Umar Cissé ak moom xaadim mbay ak ñu ñu àndal ñëpp ñu ñëw joxe seen participation ne leen yàlla fay président ASC Jaloore promoteur immobilier bu mag bi xam ni ku mu xam luyaas jeex na ci yow daggal na la terrain xam ni diggante gàcce ak góor ñi mi ngi ciy dox lu mu mën muy doomu cheikh Mahfou Faye ak Adja Kumba Ba mu cheikh Ibrahima Faye mu cheikh Décalaw waaye sa maam aana bi maam Cheikh Amadou Bamba dem tukkeem bu rëy bi fii fii ci mbot fii moo ko laaxaloon laax ba kon yow boo ñëwee ci lépp sëriñ Bamba wàcc nga sa yëfi maam nga ñëw kooku kan la ñu ne as biram fay mu baax mi lool Cees xam ngeen ni baax na moom yéen waa Cees xam ngeen ni as biram baax na ak kan ñu ni ki nga xam ni mooy Amar Mbay commerçant bu mag bi ak jëwrin Moustapha Kara Fall mu baax mi ak jibi ndaw jannatul mahwa couture ak association des jeunes tailleurs de Moussante billaay yéen a baax gaynde gu góor fu mu nekk gaynde gu jën wéttali ko jigéen ñi seen alal a njëkk ci diine lislaam ñoo ci njëkk ci diine lislaam ñoo njëkk daanu ci diine lislaam soxna su baax soxna Astu Mbàkke gaynde Faatma soxna maam Faatimu soxna Kine Mbàkke Abdoulahat ak ki nga xam ne nag sama bas la maa ngi leen di wax bu ko kenn bu ko kenn basoo bu kenn féetee moom man la féeteel ma féetee ak moom kooku kan la ki nga xam ni dara dara ci ndomb tànk safu ko lu juddoom rëy rëy jikko jëlu ko couleur kooku mooy Adja Ndeye Tické Ndiaye madame Ba Adja Ndeye Tické Ndiaye ministre bi nga xam ni wax naa ko ca Thiès neen doon na ministre bu yàgg ndax luy soxal réewam bu ko buy dox ci la ne buy wax ci la ne buy jëf ci la ne xoolu lu ko réewam defar waaye mi xool lu mu defar réewam day tikkee jërëjëf Njaay ak kan madame ba coro saw madam Sey Khadijatou Dia femme d'affaires Fatou Géwal Diouf Noreyni soxna baali muntaha mu baax mi lool Madame le maire Matidia Fatou Kara Thiam responsable politique APR ca Thiès maam Seynabou njaay di doomu Siré Dia mu baax mi lool ak Aïssatou Sow femme d'affaires Ndeye Maguette saw femme d'affaires madame Soxna Sougou katida fee mu sëñ saaliwu waaye nag fii dinaa fi taxaw dañ doon jooy ay dañ jaay badaloo fépp di ko jooy diine jooy kër maam Cheikh Ahmadou Bamba jooy poroxaan jooy lépp jooy jirim yu jooy bàyyi yu jooy ñu am ko xam ni day jëfe ni moom waaye wàcc na kooku mooy ki dëkk caaro yi azur ñu koy wax maam jaaro juuf maam jaaro xoolul leen lu dul doon taalibe tarbiya nangoo doon nag ni lu tax maam jaaro mu ni sama turandoo dundul lu bari ci at dañ ko foog waaye dund na la bari man ko lu tax mu ni fanweeri at ak ñett jubook yàlla lool xatraayu ak yàlla lool ni li gën maa koy am am na ko mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak kan soxna Mariam Saw mu sëñ saaliw maa ngi yéen dañu sori ñëw leen bëgguma lenn fenn man lu nabi am rek bëgg naa waaye lu mu am faneen la neen bëgguma duma doon micro santalu fenn maître de cérémonie bu Rasulullah rek waaw tàccu leen pàcceer bu baax. alors alhamdulilah rabil alamin la ñuy wax ginnaaw nag bi ñu passé soirée bi mu daal di nag am réussite totale alhamdulilah la ñuy wax yëfi sëñ Bamba la ku yokk yaa wàññi kon nag Serigne Fallou Thiès lañ àndaloon fii ci Sorano tey nag mu doon def soirée spéciale àndandoo koog ay xaritam àndandoo koog ay am di jàmbam ay mbokkam ñëw Serigne am ñaanal ko Cheikh Modou Kran Noreyni kon nag dañuy ñaan yàlla nag euh, li nga xamante ni moom la def muy ñëw. de façon fréquent yàlla defal ko ci mu am lu sut njortam ci barke Serigne Touba waaye maa ngi remercier bu baax a baax sama doom ji di li mbay ah macha allah di nuyu bu baax ki nga xamante ne aussi mooy Pape sunu chauffeur di kontaan bu baax nag encore ci sama yaay walin Fall la reine du foulard du chapeau et du chignon ndax nii mu ma def nag tubaar fakal la neexee na ma nu ne li mbay te du ma tàyyi mukk di ko sant bu baax a baax borom le 29 juillet dama koy ñaanal jàmm yàgg yokk tekki jariñu ci bàkki sëñ Bamba Xaadim Rasul bu sañoon caatam fu mu dem validé te wax dëgg yàlla kontaan naa Peace and love et passez une excellente fin de soirée sur Sénégal 7 bisous